ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñu jox leen li gën a fës tey naam na dinañ daj ay coono ci seen wutum client ci seeni kàddu ñoom marchand ambulant yi doyloo nañ seen liggéey ndax moo gën ñàkk def dara ñoom leen rek lañ soxla mooy ñu gën leen jox cër ci réew mi ginnaaw ba fi armée tàmbalee ay opération de sécurisation avril fukki fan ak ñett naka noonu Amadou Djiba porte-parole bu mouvement des forces démocratiques de Casamance ne xaaroon nañ opération duggee ci digelu président Macky Sall ngir attaquer base rebelle yi lolu waral mom porte parole bi amal ab déclaration ngir wasare une position depuis opération de sécurisation yi l'armée tambali won ndax ci ay waxam sen ay revendication dañ ko wék ci non violence ak respect de l'homme mu melni état bu Sénégal dafa bëgg a ak opérateur privé yi ci mbirum pèlerinage au lieu saint de l'islam naka nonu président de la république d'Adi ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur avec délégation générale du pèlerinage nous def partenariat avec opérateur privé pèlerinage 2022 bi ci